incha allah jàmm gën ñu ngi leen di nuyu bu baax mbokk yi ñu dem. su baaxee cameraman bi doo wàññi micro wàññi a ma xaaral. bu mag ñëw teew fii ci jàmm gën fekk fi doomu jàmm gën si Kàmb Mbaaw Fass Mbaaw Talimam Jaara muy Siteu mbokk yi bés bi li ko waral mooy dañu jëm ci bés bu mag muy bésu la 6 novembre ñu ànd ci ak waa jàmbaar production digganteem ak Papa Sow tey maa ngi nii taxaw ak Lamine Lutte TV taxaw ak Fallou ñu ak Fadal Niang dakaar Buzz waaw ak presse bi yëpp ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax Lamine Fallou tey ñu ngi ñëw fekk fi Siteu Siteu tey gis nga ni jàmm gën mel gis nga say fan si tey ni nu def fii tey lii mësta am tey bi open presse amee ba léegi ni tey bu bis bi melee nii tey kon lamb ja nan la war a mel ma bàyyi la nga nuyoo ak ñi lay seetaan. jël ko micro bële jox waaw asalaamaaleykum. di wax ne jërëjëf borom Touba. borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sant sama sëriñ sëriñ sëriñ Mbacke Alxuraan Mbacke balaay sa maa ngi lay siyaar di lay bëggee di lay jox sa waajuwaay di lay wax ne ñun ñoo sa ginnaaw Mbacke Mbacke wax ñu ñu jëli ko rek ñu jëli ko yow rek la ñuy xaar beneen bi may waxaat mooy damay nuyu sama mbokku séeréer di laaw foole séeréer nuwaanaa laaw séeréer misim nam jit maam xooyam na ko mbaa fanike ka xatuna añ ñoo Jonwaar Fayago Amounde Thialane Jinda bo mi andoonanga xane ta ref o mbind i mi xooya den de ngara sikkaam no combat fene ke yaam combat fene ke combat ref i a jarana mo ñisole kon nu ga kiin a waana rek fada fi'in bege na leen i tarkinaay jaamo man fii mooy sama xol fii mooy sama xol open presse xam naa ne mënul yegg xam naa ne mënul xaj fii mais man fii mooy sama baal fii mooy sama xol fii mooy sama jamaa parce que alxuraan fii jàmm gën ku leen bëgg rek ma bëgg la parce que Serigne muusu jàmm gën wala xaju jàmm gën sax ku la bëgg ma fonk la parce que maam Serap Fall ah. ah, une semaine du combat ko presque huit mois à ah, une semaine du combat si te instant yëg. waaw li may yëg lenn dong la taw féex ndëkkee. am jaamu ju bari samay supporter di leen wax ne damay dalal seen xel di wax ne lamb ji dama koy jooy benn jooy dum man ak Papa Sow waaw benn lamb ji danga jooy benn jooy laa koy jooy lan mooy loolu xamoo li loolu wax ma ko da ngay xool ku dégg kàll wala koo xam ne dégg na dégg déggan xool na alaa jox mu wax la ko aw ma tax wax la ah, wax ma rek sita waxal leneen ndax micro ginnaaw Siteu mbooloo mi xale yu ndaw yi bàyyi seen fukki dërëm seen i ñaar lépp di ko dajale ndax yow mbooloo nekk sa ginnaaw. mbooloo mi mooy tax ma rey sa ñoom ñoo gën a sa Ba. Fane bu doon sama mbaxan bi kese bu mbaxan kese kon ma dem États-Unis doo ñii ñii. ginnaaw ñii ñoo nekk ndaw yi nga xamante ne ñoo ëpp xel ñii ñooy ndaw yi nga xamante ne ñoo dàq jàng ñii ñooy ndaw yi nga dañuy jëm di liggéey ñu leen di fay mille francs ñu xëy defar leen foofu ay toog suuf barke sëñ Bamba sama borom ak Tafa mais nag sant yàlla ñun mosu ñoo def ñun iñaana yaw telel yaay ma mbeñe Hey!